asalaamaaleykum mbokk yi ñu teelu ci Leral TV ak Leral point net ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax ngeen dal ak jaam seen biir télévision Leral TV tey ji nag eh, ki bu Leral daal di fas yéene sekk waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy Famara eh, ku ne umpalewul ne fii ci Sénégal nag jamono ji ñu ngi dund nag ay tolof yu metti jëm ci coowal viol boo xamante ne ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr di ab masseuse bu doon liggéey fële ca Sweet Beauté eh, dafa jiñ ki nga xamante ne nag moom mooy leader bu Pastef di Ousmane Sonko mbirum viol maanaam rek daf ko sàkku ba pare daal di koy rek menacé ba coow li nag jugee ba léegi fii ci Sénégal gis nañ nag version yi bëri na nekk génn nga di wax mbokki Adji Sarr nag ba léegi am na ñu génn ne ay mbokkam lañ am na ñoo xamante ne tamit jug nañu ne ñoom ak Adji Sarr xamante nañ ñoo bokk am na yu bëri yoo xamante ne bi mbir mi amee ba léegi daal nañ ko si jot ci ay audio ci ay vidéo yoo xamante ne ay photo sax yoo xamante ne daal dinañ koy dévoiler loolu lépp a tey ki nga xamante moom mooy Famara Sarr dafa fas bàyyi mu nuyoo Famara ñu ngi lay waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di fay di wax ne salaamaaleykum mbokk yi àdduna eh, Afrique ba Sénégal yal na jàmm am ci réew mi. Eh, di sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu di sant suñuy waajur waa ñu ngi nuyu ñëpp waa tamit eh, fas yéene tamit indi bépp leeral ci bépp laaj incha allah. Famara tey jii lan nga ñu mën a wax euh, ci sa relation aji Sarr lan nga bokk ak Adji Sarr ban lien de parenté ngeen am. waaw comme li may wax sénégalais yëpp rek pour ñu mën ko dégg mooy aji ñoo bokk benn papa hmm, donte nag euh, fekk na yaay yi fekkantewuñu eh, mais ñoo bokk benn baay yi. ci nan la noonu. waaw suma papa suma yaay la njëkk a nekkal waaw benn instant tamit xam nga. lu ne mën naa am ci biir sëy waa ñu tàkkali ko après benn instant ci la gisee ak yaayu aji waaw après benn moment yi tamit euh, ci la aji ñëw ah, benn instant yi tamit euh, yaayu aji décédé mhm. ñu continuer di nekk ak nag suñu benn tànt kookoo ma yar ñu koy wax Mariama kooku moom laa def comme suma yaay waaw noonu demee noonu la ñu bokkee man ak aji ñoo bokk daal benn papa bi nga xamante ne moom moo ñu bokk jur. Mhm. tey jii euh, sa relation ak Adji nan la tëdde waaw comme relation mag ak rakk rek waaw suma rakk la man magam laa wax dëgg mu nekk koo xamante ne ku baax la ku ma jox cër ku ma fonk te déggal ma man it ma bëgg ko comme mbëggeel goo xamante ne sax amul àpp waa ndax dañu déggoo woon suñu biir di kaf di foo di ree mhm, noonu lañu mës a nekkee suñu biir kër. Euh, euh, Adji Sarr yaa ngi may wax sànq nga ne bi yaayam amee juróomi bi mu amee juróomi at ci la waa juróom bu jigéen daal di génn àdduna mën nga dellu siwaat bi mu faatu Adji Sarr ci yan loxo la nekk kan moo ko yaroon ak boobu euh, ba léegi fan ak fan la jaar. waaw loolu tamit dinañ ci andi leeral mooy que aji bi yaayam gaañoo mu ngi mu ngi nekkoon ci maamam suñu benn maam bu ñuy wax Satu Ndong fële Camaya waaw maam suñu maam jooju noonu ak ki jur suma papa ñoom ñoo bokk ndey ak baay ay mag ak rakk lañ waa mais nag seyuñu ci benn île bi eh, suñu ki jur sama papa mu ngi sëy île bi nekk jam ñaajo bi fi ñuy woowee jam ñaajo moom mi ko yar tamit moom mu ngi sey fi ñuy wax maya mais ñoom ñëpp ñu ngi jógee ci benn dëkk bi ñuy wax Fambine waa noonu la demee hmm. tey jii euh, euh, mbir mi ba mu amee ba léegi euh, sag njaboot naka lañ koy dundee ak sa papa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa tante. waa neexul kenn neexul kenn parce que tamit dafa métti waa tey li muy métti yëpp ñun sant nañu yàlla parce que ay jullit lañ te xam nañ ne nattu la waa nattu bu ñëwee rek en tant que jaam yow danga ko war a nangu te nangu nañ ko waaye tamit métti na métti na parce que tamit tax nañu bàyyi suñu ite yëpp. waaw kenn ku nekk la nga daan liggéey bàyyi nga ko ngir bokk ak aji naqar wi ngir tamit euh, teewee ko comme teew ko nga xamante ne yéen a bokk waaw nii da lañ koy dundee depuis boobu léegi. xamante ne moom mooy mbirum viol bi muy tuuma usmaan Ousmane ko jàpp nga ni dëgg la. waaw comme li may faral di wax ak li ma waxoon ci audio bi may dellu di wax sénégalais yëpp ne aussi euh, aji sénégalaise la comme Ousmane ni mu nekkee sénégalais itamit ñu bàyyi xel ne. Eh, lan moo war a mën a tax ñu défendre ne usmaan deful lan moo war a mën a tax ñuy ñuy dëggal ne aji eh, affaire de complot la waaye comme li may wax rek te wax ko fépp fa nga xamante ne fu ma toog ñeme naa ko fa wax mooy la am muy Ousmane muy aji yàlla ñoom ñetti ñoom ñoo xam waa lépp lu ci waaye di wax te mu nekk loo xamante ne wut ak loolu noonu ah sa ñeme yàlla rek ngay wax waaye la am daal pour man yàlla rek a xam jàppoo ne dañ ko sàkk wala jàpp nga ne dañ ko sàkk. waaw loolu moom laa lay leeral rek. waaw foofu yàlla rek a xam parce que fekkeewu ma yeggu fa comme yow ni la nouvelle bi dalee noonu la may dalee kenn ku nekk am na sañ-sañi xalaatee nu ko neex waaye ci tamit ragal yàlla ak maandu ñun foofu lañu foofu la sukkandiku waaw mooy que lu ñu xamul ñun duñ ci wax duñ ci avancé waa mais le fait que lépp dem na ci yoon daal ah ñu bàyyi yoon rek mu def liggéeyam ñun dañu gëm yàlla dañu ragal yàlla dañu maandu aussi waa la am yàlla moo fekkee ak ñoom ñaar bu amee ñoom xam nañ bu amul ñoom xam nañ waaw. mbir mi eh, nan ngeen ko yëgee ci média yi ngeen ko yëgee wala Adji Sarr moo leen avertir wax leen ne dañu ko sàkkook yooyu. waaw xam nga Sénégal tamit eh, ñaareel parfois da ngay déggee ay mbir ci ay coow waaw parce que mën na la fekk ci lieu boo xamante ne mën na ñàkk réseau. comme mën nañ la woo duñ la jot waaw ñu oo nit euh, jot ko wala tamit euh, nga nga dox ba nit renseigné la waa man moom su ma lay wax rek te yàlla tax man maa ngi ko déggee ci réseaux sociaux yi après nag euh, par la suite ci laa ko envoyé audio déggante ak moom waaw. ci ban moment nga ko yëg. waa jàpp naa su ma juumul daal bi mu amee deux jours su mu fekkee juumu ma. Mhm, bi ma amee deux jours ci laa koy ah, ko envoyé audio lan nga ko ci wax. waa dama ko ne coow li may dégg il faut itamit nga wax ak man ma mën a xam li xew lan la waaw parce que dañuy dégg nii rek te xamuñu waaw pour ñu xam nag yow yaay ki nga xamante ne yow yaa ñuy mën a wax lan moo am. waaw après bi ma ko envoyé audio bi waaw def na benn moment moom tamit mu delloo si ma audio bi ne ma dinaa la oo diggante gi la ma oo parce que def nañ diir boobu coow jóg na ci diggante gi la ma oo waaye tamit ñu waxtaan waaw li ñuy waxtaane mooy que il faut tamit nit ku nekk rek boo amee sarak wala sa sa kilifa tiim la tamit foog mu laajte la ndax yaa ngi si jàmm wala mu dalal la ba pare dalal say xel laaj la ba xam yow fi nga nekk ndax yaa ngi lekk yaa ngi naan mbala yaa ngi si jàmm waa ci loolu nag lañ njëkk a waxtaanee waaw bi ma laajee loolu yëpp nag wax na ma wax dëgg yàlla mu ngi si jàmm mu ngi sant yàlla. Hmm. mais jàppoon ne problème bi bu mu amee si saase bi nga ko violé noonu ci li mu wax dafa waroon a ñëw ci ay mbokkam ñibbisi toog wax ak ay waajuram wax li ko dal ñu mën a àndandoo yéen ngeen porter plainte mais euh, décision bi mu jël euh, toog euh, gisoo leen ko amuloon ci moom ay nouvelles est-ce que du xaw a andi ay jixi jaxa si kelu askan bi. waaw xam nga lu mel ni tamit du dal ci kenn ñu ne eh, gisewuloo ak say mbokk bu fekkee gisewuloo ak ñoom wala tamit déggantewuloo ak say mbokk loolu xel mënu koo nangu waaw te it foofu damay leeral comme ñiy faral di wax naan comme ñun famille bi wala papam da ko sànni wala ñun famille bi dañ koo sànni loolu noonu teguwul fenn amut waa pour xamal nit ñi ne aji bu nekkee si jàmm ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax a ngi déggante ak moom. waaw ñu ngi xam ne moom mu ngi si jàmm bu baax. waaw pour confirmer nit ñi ne xam nañ ne aji. mu ngi si jàmm mu ngi si jàmm joo xamante ne macha allah alhamdulilah. waaw par téléphone la ñuy déggante. Mhm. mais est loolu tam du dëggal li ñu wax ni aji dañ ko làkk non non loolu mënul dëggal ne aji dañ ko làq. déedéet mënu ko dëggal. parce que itamit eh, ñun doyadiwuñu doyadigu tax ñun ñu bëgg a gis suñu rakk wala suñu doom. ñu xañ ñu ko loolu mënul nekk loolu it nekkul sax lu xel war a mën a nangu waaw comme ñi euh, dégg naa benn émission la xaw ma euh, kii dàmbooj mu ne papay aji ñëw na Dakar wër na aji pour gis ko ba sonn ne euh, munu koo gis loolu amut sama papa xam naa ko kilifa la boo xamante ne lépp lu ko soxal loo xamante ne bëgg na koo am dana ko ami rawatina nag ci doomam waa comme li ma wax ci audio bi rek puso la moom day ñaw day defar du tasaare waaw pour dëggalaat nit ñi ne daam mbóoj wax jooju noonu mu wax du dëgg du dëgg sama papa ñëwul benn yoon dakaar di wër aji te mënu koo gis loolu noonu amut waaw mais ñun xam nañ ne aji mu ngi ci jàmm Euh, tey jii euh, problème bi am na naam mais ku si nekk yaa ngi génn ci média yi di wax dañuy jekki xëy suba ñu ne kii tantay Adji la wax na ci média bi wala ñu ne kii mbokk Adji Sarr la nee xaritam la xamoon na ko Liberté 6 la yaroo ñi la naan ginnaaw raay la màggee est ce que mën nga ñu dellu si tuuti ci parcours Adji Sarr ak ñi nga xamante ne génn nañ jël kàddu di wax ne ay mbokkam lañ est ce que loolu yow tey jii mën nga ko dëggal. non ci ñoom mënuma dëggal seeni wax wante nag euh, damay weddi ñoom seeni wax. li tax aji ba mu jógee Maya jàngee fa après dem Jirnda jàngee foofu noonu bi mu jógee Jirnda ci la ñëw Dakar te bi muy ñëw dakaar suñu kër la nekk suñu kër la nekk euh, ginnaaw raay waaw suñu kër la nekk nekk foofu noonu ak ñun ba benn instant yi tamit euh, muy soog di dem Grand Yoff ci tàntam bi mu jógee ginnaaw raay ci kooku la nekk pour dellu siwaat tuuti ci ñi nga xamante ne jot nañu yëkkati ay wax yu ñaaw jëmale ko ci kawam di wax nit ñi ne rek ñun dañoo yar te ay jullit lañu dañu gëm yàlla comme ni may wax toujours rek ragal yàlla ba tax na du ñu xaawi suturaay kenn waaye ñoom ñi wax leer na leen ne ñoom li ñu sosal aji te du dëgg ñoom ñoo gën a yées aji comme ni koy waxee ci audio bi dama koy damay delluwaat di ko waxaat ñoom ñoo gën a bon aji ñoom ñoo ko gën a yées ci zahir ak ci baatin comme ni ma ko waxee mooy ku jigéen ki njëkk a wax bari na wax yi mu wax te ki nekk ginnaaw raay non li mu wax comme nit ñi ñu ngi koy dégg si audio bi su ma nekkee tamit di ci répété waat euh, dama yaakaar ne temps bi day dem waaw mais comme pour xamal nit ñi ne. mais xam nga ñu wax dañu bëri boo si mënee cofaale benn wax rek. waaw comme mooy mooy comme nabu rek femme bi dëkk ginnaaw raay ak euh, xale bu góor bi nekk tamit euh, extérieur Italie ñu koy wax Youssou ak femme bi mujjee wax démb ak euh, femme bi ne aji dem na Fatick te aji mosul dem Fatick yaa ngi dégg waaw kii wax ne papam dañ papam dakaa génnee dakaa mere muy nabu loolu amut suma papa man dama dem ba benn instant sax damay xaw a am fiiraange ndax jigéen ñi sax la gën a bëgg ko man kon kooku du jël doomam di ko génnee ci biti waaw muy yisu bi nga xamante ne itamit euh, wax na ne aji jëlkat laak day créer ay problème noonoo non aji du jël aji du sàcc aji dañ dañ def ci moom yar ju baax comme man mii di waxee yow man ni ñu defee ci man yar noonu lañ defee ci moom yar yar goo xamante ne ku mu gis jox la cër ji nga moom te liggéey lañ ko xamee day daan dooleem xam nga am jom am fulaak faydaam peut-être lii nag moo mën a ñëw rek kenn ku nekk di wax te xamuñu li ñuy wax walla ñu nekk di sos mënuñu si dara nag waaye tamit mën nañu leeral nit ñi ne ñoom li ñuy wax teguwul fenn dégg naa ku ci wax ne aji sëy na ba am na xawma ma doom aji mosta sëy mosul am jëkkër mosut sëy mosut am jëkkër mosuñu toog sax ba gis koo xamante ne ñëw na ne eh, may bu njëkk laa ko indil wala dama koo bëgg comme soxna mosut am aji mosuta am doom mosut sëy mosuta am doom. Euh, dañu wax ñu ne euh, li mu def Ousmane sonk nii tey deal la te am na beneen professeur boo xamante ne jot na ko dund ak moom teg na ko deal bi tamit. waaw mais kon ñu dégg ko kon dañ ko doon dégg avant su doon ne lu am la kon dégg nañ ko bu yàgg avant lii. kon su fekkee ne lu ñu wax la te mu doon loo xamante ne am na ñu dégg ko avant kon bu jëmaatee ci lii rek kon dafay yomb kon nit ñi dañuy gëm ne kii nii ci lii nii lay dund mais loolu yëpp amut bu amoon ñun ñu xam ci dara maa ngi koy soog a dégg nii sax ci audio yi ak nii nga koy wax mais loolu noonu amut. tey ji su ma la déggee ci say kàddu euh, da ngay dëggal ni sa waajur bu góor mësul génn aji saar ci këram. non non mësul am mësut am. léegi ñi naan ay tàntaam lañu ak ay ay ay ay sëram lañu ak ay jabaru euh, nijaayam lañu fa dañu doon sëy yooyu noonu ñooñu ñooy ñan kon. non xam nga comme bu fekkee comme ki ma la njëkk a wax ne nabu ne tàntaam xëy na mën na mbubboo ne tàntaam la. waaye xam nga ci ñaar liñ mën a xam ci tànta mooy ki ki ki nga xamante ne mooy ki sa papa takk wala sa rakk yaay waaw kooku nag sama papa takk ko te nekkul rakk yaayu aji yaa ngi dégg. déedéet non kii di wax naan ni fi mu wax lieu bi mu wax ne foofu la aji nekkoon tey tamit nijaayu aji foofu amul benn nijaayu aji bu fa nekk muy jifiir gi muy wax ma yaakaar ne xëy na kay aji buy am ay nijaay ay nijaayam Grand Yoff la ñuy ne wala ci dëkku yaayam mais jifeer ay rakki papam la fa nekkaloon ci ñooñu noonu la yaroo e, te ñooñu ki maire bi ma la wax ne Satu Ndong moo jur ñooñu kon foofu aji amu fa nijaay ay ay mbokki papam ay magi papam ak ay rakki papam ñoom ñoo fa nekk waaw ñooñu di wax nag mooy e, femme boobu noonu xam nga lim fi jël na iPhone hmm? ci jamono gi muy wax lu jamono gi muy wax ne jamono googu la aji nekk e, jifeer boobu iPhone siwul wala boog bu siwee siw googu noonu ko bariwul ñu ko fay yor wala boo aji capableul pour jël pour jël téléphone simple sax bay jël ay iPhone hmm? bu ñuy wax daal comme man li may wax toujours nañu ragal yàlla nañ delloo suñu xel tamit ci yàlla te tamit ñu xam ne ku fi dee rek ak sa bàmmeel ñu ñaanal ñëpp ñu am jàmm moo gën ko kenn ku nekk di génnee ay audio di ko jëmale ci aji te wax ji du rafet te lépp ay sos la. kon ñooñu ñëpp duñ seen mbokk duñ seen dara. non man noonu ñooñu jàppewu ma leen comme mbokk parce que mbokk du yàq deri mbokkam. mbokk mooy ki nga xamante ne même su la xamaloon lu ñaaw war naa mën a taxaw suturaal la défendre la même bu fekkee yaa tooñ man tey bu tooñee bu tooñee nii ma toogee nii mën naa toogee nii jéegalu ñëpp mais buñ ko tooñee aussi nii ma toogee laay toogee wax li ma li ma xam li ma bëgg a wax waaw mbokk nag noonu lay taxawee mbokk doo taxaw taxawaay boo xamante ne da ngay yàqamti musibaaw nit ki te ñoo ñu di wax mais laaju ñu leen ku leen laaj kan moo leen yebal wala kan moo soxla ñoom seen avis kan ak lan moo tax ñoom ñuy wax ku leen laaj ñun loolu lañ bëgg a xam waaw lan moo leen wax loo Adji Sarr euh, euh, ñu ngi naan âge bi mu joxe abu ko ñaar fukki at la am am na ay frère am na ay sœur ñaata rakk la am est mën nga ci dellu si waat ay rakk euh, ci côté baay benn rakk la am ku mu bokkal ndey ak baay non gisuma nag ku mu bokkal ndey ak baay kenn man mii la bokkal baay ak suñu beneen rakk ñu koy wax faatu li ma leer te wér mooy aji ba ko yaayam di bàyyi fii gërëm na ko te ñaanal na ko parce que dégg naa itamit ñuy wax ne yaayam li ko rey dafa jóge ci aji saar loolu amut parce que yaayam ku ko bëggoon la ku baax yàlla na ko yàlla yërëm ku baax man mii nga xamante ne eh, man maay magi aji def na ma kom aji parce que ci lu bari lañ doon waxtaan dafa ma doon conseillé di ma digal lu baax waaw ba nii muy làqu kon kooku merewul aji benn yoon ah dégguma ko boo dégguma ko te yëguma ko. Hmm. léegi seen tante bi ngeen nekkal actuellement te sa waajur bu góor di ko denc lan mooy seen relation ak moom ak relation ak Adji Sarr est rataxoon na. waaw kooku sama yaay la <laughs> kooku amuñu fayam parce que xam nga ne kuy nangoo jël aji di ko toogloo ci kër. toogal ñu yem nii ñu toog ñun ñëpp bu ñuy naan ñu naanandoo bu ñuy lekk ñu lekkandoo bu ñuy nelaw ñu nelawandoo kon kooku amul benn intention bu bon ci aji kookoo ma yar ba fii ma toll nii di wax ak yow def jikko yu rafet ci man aw ma fayam macha allah ñu koy wax Mariama Sarr eh, képp ku dëkk ginnaaw rek xam na ko. Mariama Sarr moom ginnaaw raay fii. Mariama Sarr mu ngi ginnaaw raay waa te gàcce ngalaama mosut toroxal aji mosu ko génnee. lu mooy da koo bëggal lu baax kaay ñu dëkk kaa ñu toog nekk famille dañoo bariwut sax nag biñ fi ñu dëkkee kon ko kenn mun taxatal kenn Euh, léegi euh, jamono ji euh, bi mbir mi amee gis nañ ne nekk na problème boo xamante ne wër na àdduna bi yëpp ndax ki muy tuubaal mbirum viol du koo xamante ne kun nit bu ndaw la lider la am taxawaay boo xamante ne am cër bu xam ne aussi nit ñi jox nañ ko ko ci réew mi bi mbir mi amee seen famille naka la ñuy dundee côté sécurité bi est-ce que nit ñi duñ leen sonal di fa ñëw ak yooyu presse beeg waa koñ ba di leen sànni ay baat ak yooyu noonu waaw fii nii pour man sauf respect bi ma jox Ousmane Sonko yàlla rek a rëy kenn rëyut ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ku fi dee ku ne juróom ñaari pelkaar mètre pelkaar rek ngay yóbbu kon rëy amut yàlla rek a rëy waaw ci côté journaliste yi nag ñoo xawoon sonal nit ñi waaye man mii kenn mosuta dajeek man parce que man xam naa suma bopp duma tooñ kenn du ma def lu neexul kenn waaye doo ma teg tamit loo xamante ni neexuma waa ci kenn menacé guñu nag xaw ma nag waaye nag amagut waaw benn instant tamit journaliste yi daal ñoo xawoon sonal nit ñi di jaabante di dugut di génn te kenn waxut ak ñoom. waa koñ ba sonaluñ leen di leen sànni ay baat. non waa koñ ba duñ ñu mën a sonal li tax mooy waa koñ ba ñëpp baax ay borom yu baax lañ nit suñ koy waxal loo xamante ne du dëgg wala ñuy yëkkati yu metti di ko teg ci daram am na ay dëkkandoo balaa mbokk yi am na ay dëkkandoo kon dëkkandoo yooyu noonu ay dëkkandoo yu baax lañ man ne dégguma fu dëkkandoo waxee lu ñaaw lu mooy kenn kii njëkk a yëkkati vocal wax tasaare ko wax wax ju ñaaw muy nabu waaw muy sey Seynabou mu ngi dëkk ginnaaw moom moo njëkk moo njëkk a nekk jigéen ji yëkkati audio wax ay waxam yu ñaaw mais à part kooku nag dégguma benn dëkkandoo goo xamante ne yëkkati na wax ju ñaaw jëmale ko ci ñun ah dégguma ko boobu lan moo mhm. bi mbir mi amee ba léegi seen waa kër sa yow sa tante bi ngeen nekkal actuellement ak sa papa ba léegi kenn dégguleen woon ngeen wax ak lan moo tax ngeen toog ba heure bi ngeen soog di wax. waaw maandu rek xam nga maandu dafa baax doo fekk tamit ñaar ñuy xeex nga ñëw yëkkati kenn ki teg ko jëm ci kenn ki balaa ngaa àtte wala balaa ngaa wax li nga xam ci xeex bi il faut nga xam il faut nga xam si dara ñun nag duñu wax ci loo xamante ne xamuñu ko. su ma papa comme li ma la wax sànq rek kilifa la gu mat kilifa waa xëy na bu heure wax bu jotee moom waxam bu jotee dina jàkkaarloo ak sénégalais yëpp wax ak ñoom parce que ragalul waaw noonu la demee dañoo maandu rek dañoo maandu dañoo maandu itamit dañ ñoo yar waaw loolu kese la. lan ngay wax ci Sénégal seen taxawaay ci problème bi lan la war a mën a nekk. waaw fii tey ak dal ñu delloo si xel yi te ñu xam ne Sénégal gii ñun ñëpp ñoo ko bokk. waa di leen ñaanal jàmm ak salaam ñu teeyaat rek te dalaat bu baax a baax a baax ñu defaat ndànk ñu bàyyi lépp ci loxo loxoy yoon e, ki tooñ bu ñu xamee ne bés bu ñu xamee ne yow yaa tooñ rek soo mënee baalu nga baalu soo mënta baalu yi tamit ka nga tooñ lu ko ne mën na la koo def waaw mais sénégalais yi nañ dal ñu xam ne taal pono yeeg yàq oto yeeg xeex ak police yeeg gendarme yeeg loolu yëpp amul benn njëriñ kenn ku nekk na xoolee aji saar comme bu nekkoon sarak lan moo tax aji néew doole lan moo tax lan moo war a mën a tax rek nit ñi waruñu koo mën a taxawu même su fekkee def na am deful lu tax nit ñi war a mën a jël dëgg gi yëpp jox ko Sonko rek euh, jël toor gi bëgg koo këpp ci kawam xanaa du nit xanaa du ab sénégalaise ah man daal maa ngi ñaan jaamu ci réew bi di wax ñëpp ñu dal teey xam nga ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm parce bu réew mi amee jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm bu jàmm nekkul si réew mi tamit ñun duñu am jàmm kon yaakaar naa ñu ñaan jàmm ji te yàlla defal ñu jàmm moom moom moo gën quoi incha allah. li ñu cërale woon ci waxtu jeex na bu ñuy tàggatoo rek yan kàddu nga mën a dénk kii di sa rakk di Adji Sarr. waaw Adji dama koy dénkaat euh, mu gën a respecté boppam et a xam moom mooy kan xam ne Ildi Saloum bi gandun xiren ñoojoor ba fayaa ko ñëpp a ngi ci ginnaawam e, fas yéene ko aussi tamit taxawu comme taxawaayu doom wala taxawaayu rakk wala taxawaayu jarbaat di ko wax ne man en tant que magam maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ko ñaanal tamit lii mu jikko parce que lu mel nii bu dalee sa kaw e, boo amul ndimbalu yàlla rek coono mën naa ñëw waaye yàlla na ko yàlla taxaw di ko wax ne mu góorgóorlu te xam ne nattu ci kaw jaam bi lay dal bu mu mos a xàddi na gëm ne yàlla rek a fi nekk lu dul yàlla neen la ñun ñi sa ginnaaw tiituñu te ragaluñu te yow xam nga loolu mu ngi noonu ñoo ko déggandoo mbokk télévision yu Leral TV ak yéen ñuy suivre suñu plateforme yëpp kooku ma nekkoon Famara Sarr nekk euh, mag ci ki nga xamante ne moom mooy aji Sarr di tuumal euh, kii di Ousmane Sonko mbirum viole euh, yoo xamante ne nag ay yoon yu bëri la waaye tamit ak ay menaces de mort ku nekk wax na ci mbir mi ba mu dooree ba léegi waaye ñoom nag kenn déggu leen woon ñu ngi doog jël kàddu daal di àddu ci mbir mi li ñu wax duñ ci teg dara lu dul bàyyi rek ñi nga xamante ne ñoom yi askan bi ñu daal di jugé jërë ngeen def